am nañ xarañ te loolu ci wàllu làmb ah, tey nag ñu daje eh, ku ñu seet si kenn du ko présenté muy Abdou Bakhoum nekk manager Ama bale tey moom lañ dara luñ defee lu jox ko kàddu yi mun di yokk mbokk internet Dakar Net yi koy seetaan appel ñu dëkk moom ci waxtaan tey ñu leen di di ziar. Ah, jërëjëf maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu monde làmb di nuyu Sénégal gi yëpp rawatina. diaspora bi yëpp ndax am nañu xale yoo xam ne ñi ak suñu frère suñuy xarit suñu doomi nday ñoom ñëpp ñu ci diaspora bi di suivre li nga xam ne nii mooy làmb nga xam ne ñoo ñoom dara du leen ëmp ci làmb kon ci loolu daal ñoo ngi ñaan suñu borom la ñu wax ci loo xam ne lii rek luy defar làmb la te xam ne rek jàmmatul alors mi ngi noonu yéen bokk internetu euh, Dakarnet duñ def rek du dugg ci waxtaan bi Euh, père euh, gis nañ combat Ama bale ak Modou Lô euh, bu bi nga xamante ni def na deux semaines ñu war a bëree ñu xam nañ combat boobu noonu mënatul am parce que Modou Lô dafa blessé ci épaule bi coow li bari loolu kenn xamul nan la demee mais en tant que manager Ama Baldé dañoo bëggoon ngir dikkal ñu waatan ci ci coow li tuuti rek nan la demee. ay coow li mu demee mooy ñoom coow li parcelle la jóge ñëw jaar ci promoteur bi promoteur bi def na loo xam ne lii xëy na. ñu bëri euh, miinuñu loolu mooy jënd na xam ne ne mbër mi nga xam ne mi mu war bëree dafa am gaañu gaañu làmb ji reporté nañu ko du noonu combat bu ñu rek régularisé ba pare au niveau de CNG du moom moo koy reporté donc ci wàll yi nga xam ne euh, erreur de communication bi mu def moo teyal xelu nit ñi rek. def erreur de communication. mu defee du noonu du moom du loolu la du noonu la ñu koy defee. boog li ñu tàmm boog miin ko mooy bu fekkee day am rapport rapport normalement séance de lutte moo koy def deuxième fois boo amee certificat médical pour ñu mën a xam exactement ne baax na wala baaxul da nga ñëw sanse ñoom am nañu seen médecin bu njëkk mu naan ma frère Ramé Diouf moo fa nekkoon nekkoon Grand Yoff bi nga xam ne lu ci mën a am dalay ñëw xool la mooy ba ñi muy fi ñuy xee am na jamono ñuy xool jumbax yooyu ba mu sa indi certificat médical dañ lay yebalaat ci moom mu xoolaat la ba xam ndax réellement mën nga bëri sa jumbax yo moom mbër yu bëree bëri am nañ ci problème ba nga xam ne euh, avant ñuy seetluwaat yooyu wala kii xëy na ñu ci ba léegi waaye daal moom moo doon xool yooyu comme demagu doon foofu nag yëg seegu doon euh, jotu doon mu ne wax ne làmb ji ñu koy reporté su ma la déggee dafa mel ni moom problème communication bi moo moo moo des parce que euh, su ma déggee euh, moom warul woon génn directement wax que ni combat bi mënul nekk da loolu CNG moo ko yor loolu nga bëgg wax. waaw du rôlam loolu du rôlam loolu du seen sala même bu fekkee ne bëgg na combat bi ñu reporté ko bu mu teel a wax lañ ko reporté na joxe kayit yi nga xam ne moom la war a joxe te ñun miinuñu loolu la li ñu xam mooy bu mbër mi am blessure yaa xam mu am taab. wala mu am damm-damm maari dañ taal yi wala mu am euh, faxaj sax wala bopp bu metti wala biir bu metti bu lay wan ne ne mënoo taxaw bëre euh, boo amee safka médical sa ménager moo ko yóbbu ànd ak président bi wala mu ànd ak ensemble wala mu ànd ak docteur am dem déposé comme quoi que loolu la loolu am na ñu ne la waaw d'accord ku mel ni Ndiame Diop saytu kayit yi xool yebal la bindal la papier di nga dem ngir euh, CFO CTO wala men kii rek pos seen kii bi nekk ñu xool la ñoom ñaar xañ na nag docteur yi yàpp naa ne kenn ku ci arsanante ba pare yenn yi doo ci dugg ndax police dañuy gendarmerie en gendarmerie gendarmerie dañu koy def président daal da koy def ma yaakaar na ku def loolu rek am naa yaakaar ne xëy na du bëree bëri doo ci dugg moo tax du mu mën a xam ndax dëgg la wala dëgg loolu ci ñoom la ñoom loolu lay ñoom lay concerné. aussi tamit euh, gis nañ ne euh, bi bi loolu amee bi ñu demee euh, Pikine gis nañ ñi nga xamante ni ñooy ñooy ànd ak ak waa Ama Baldé nee na Modou Lo dafa dagal combat bi mais nga loolu moo am wala blessure moom moo am parce que ñu bari jàpp nañ Modou Lo comme ni ko gars yi waxee dañ koo jekku mu mu bëgg a yàq combat bi waa pikin nan lañ ko waxee yow nag nga gisee loolu. non kenn jekkuwu ko loolu ñuy wax rek kenn jekkuwu ko moom moo bëgg lu bëree. xëy na parce que li tax ñoom seen xel tey ci mooy jàkkaarloo yi waroon a am yëpp nga xam ne da waroon waroon a jaay làmb ji ba mu gën a neex gën a taaru. moom bu jekkul bare kay cela veut dire dañ ko dañ ko jekkum bu bëggul bëre. <laughs> waaw mais loolu dara non xëy na jàpp ne euh, combat bi combat bu dis ci moom la combat bu dis ci la yenu na ko ba nga xam ne xëy na xamul fu mu koy sotte ko ndax li nga yenu te mënoo ko yàq fenn. fi nga war a yegg fenn rek la te yegg goo fa te bëggoo fa yegg ah, en fait loolu xëy na noonu lay bindoo rek. waaye yéen a jàpp ne blessure bi moom euh, gëmoo leen ko. waaw moom bu fekkee ne daal cent personnes la quatre-vingt-dix yëpp gëmuñu ko. lu tax gëmoo ko en tant que Modou bi nga xamante ne moom yàgg naa am saan bu nekk rek ponkol bu nekk est-ce que euh, blessure bi euh, confirmé wul loolu mu bàyyee ba war a bëreeg Ama Baldé même pas deux semaines mi mi créé blessure bi nga xamante ne pour bañ a bëree. non man waxuma ne du moo amul de waxuma ne la amut. mën naa ko ba a gëm nag sama gëm-gëm la am mais mënu mën a amut parce que bu fekkee ne docteur bi ko def euh, médecin la boo xam ne bii xëy na loolu mooy rôle mu gis loolu di ko jàngat man jànguma médecine maa ngi daal li ma gëm sama ngëm-ngëm mën naa ne bu doon cent personnes la quatre-vingt-dix personnes yi gëmuñu ko gëmuñu ne loolu mën naa am ndax li tax mooy jàkkaarloo yi nga xam ne ñoo waru a def ñoom ñaar di ay doomi nday di doomi réew mi nga xam ne dañoo war a taaral comme bés bi dimbali promoteur bi promoteur bi def li nga xam ne li mooy ay ay kiyam sponsor yi wuyu si ko vraiment boo gisee sponsor yi jafe ba léegi ñàkk jàkkaarloo yi doon bañ a am rek ndax buñ jàkkaarloo woon jàkkaarloo waat daje waxtaan kafre sponsor bi day gën a sponsor day gën a yaatu ci tamit euh, ci kàddu wax euh, comme nee nga ne euh, sponsor yi loo tax nanguwuñu ñëw mais tamit am na yoo xamante ne ñu ngi koy dégg suuf nee nañ boo gisee promoteur bi combat bi mu ëpp ko doole dafa fekk ne sponsor yi ñoom ñoo ñëwul. waaw parce que moom waxoon na ne am na sponsor bu mag bu ñëw la preuve jakkaloo dina am ak du am mu ne moom jàkkaarloo dina am. jàkkaarloo am na parce que dinañ ci ëddëkaat foofu noonu ci APH bi yàlla dogal ñu def ko fa. jàmm di rek fa am kenn deful kenn dara te itam moom xamal nañu ne ne moom maye nañu làmb ji ku dëkk Sénégal di nga seetaan làmb ji kon am na sponsor bu mag bu yàlla dogal na ku mel ni Demba Ka dugg ci dugg ci loxoom ñu bari Sénégalais yi bari dugg ci loxo pour làmb ji am ñi ci amul sax lu ci dugal sa loxo am nañu yéene mu dugal loxoom de passage di Luc Nicolaï moom def na li mu war a def jox na mbër yi xaalis mu ngi jéem a def kay nañu am yërmande ci moom xaritoog moom wala nga defe moom dara ba tax nga di ko sonal teg ko yenn yenn écho yi xoññeel ko ci yu bari ba te moom am na kersa bañ a ba a yenn yi ci bari nag mën nañ ko waxal moom mais laal li ñu mën def mooy te mën ko xam li wér te wóor mooy bu ca bés ba yegg seeguñ ca nag li ñu mën a xam mooy. le treize le treize mars. le treize mars moom bëri. waaw d' loolu ba léegi amaguma këyit gu ma firnde ndax dama amoon këyit gu ma firnde ne le treize mars dañuy bëree sama mbër dem préparé ji pour bëri ji le treize mars këyit googu amaguma leen lu ko changé. këyit gi amagoo leen lu ko changé lu dul wane na que ni combat bi moom kon jàpp ngeen ba léegi le treize da ngeen di bëri. waaw ba léegi nii de. amaguma dar lu firnde ne am na ne am na report. ci combat bi. mais li Nicolas génn na combat boobu mënatul nekk le treize. mënut a reporter GNC de lutte mooy reporter lamb parce que leen yaakaar ne li li ko ah, Nicolas wax yéen dalul seen xel parce que le 13 moom moom taxaw na génn le 13 ah, combat bi mënatul am. waaye ñi connaisseurs yi xam lamb yëpp bokk ci euh, euh, regroupement des ménagers bokk ci estabu làmb xam làmb yàgg seetaan làmb ba CNG amagul ba léegi ñu seetaan làmb nga xam ne ci ay billets la woon lañ doon def ak i bon. ñu miinuñu li nga xam ne noonu la ko lay defee mooy génn day Modou Lo mënatu la bëree dañuy reporter làmb ji reporter nañu làmb ji bu noonu ñaan na yàlla comme mënatu la bëree kat maa ñaan yàlla seen bu ñu ko saytoo bu fekkee ne bu fekkee ne dañu dañu dañu dañuy dañuy reporter làmb ji moom a gënal parce que ñaari mbër yi mhm. gis naa ne nagatuñoo bëree na mëntuñoo bëree. kon ci wàll woowu daal doo mën lu dut def li nga xam ne lii moom nga war a def préparer di xaar jour bi ñëw la treize nga ñëw nga bëri si. aussi tamit euh, euh, ñu gis que ni Jules Baldé génnoon na moom euh, ne combat bi le treize bi incha allah moom bu ko buñ ko bëreewul dootuñu bëreewul ci combat ba léegi dañ lay laaj ba xam yéen yéen a ngi foofu wala parce que moom génnoon na la treize bi moom moom moo nekk dernier bi nga xamante ne mooy date bu bu buñ ko bëreewul mooy loolu. loolu ko waxee am na ci droit deuxième fois. xel nangu na ko xel nangu na loolu mu moom mhm. waaw. parce que combat bi euh, le treize bi bu jàll bu woon bëreewul dootoo woon bëree. waaw xam nga la plupart euh, li nga xam ne lii jàkkaarloo yu njëkk bi mu njëkk a def ñoom mhm. ba jox ko avance moom mhm. ci loxoom dañ ko teg. kon loolu mu ci wax am na lu mu ci xam moom ci kàttanu yàlla waaye daal jàpp naa ne bu équipe bi manko loolu mu wax noonu équipe bi manko dégg déggandoo ko gisandoo ko noonu mbër mi gisee ko noonu staff yëpp gisee ko noonu jàpp naa ne yeneen wax lay doon ci kàttanu yee loolu muy wax du neex a doo ko du neex a dindi aussi tamit gis nañ ne euh, amateur làmb yi sax la parce que gis nañ ne fan yi passé euh, mbër moo daan mu ne sama loxo dafa dafa damm wala mu ne sama euh, sama jeune dafa damm aussi tamit ñu gis ni combat bii nii am nañu bari ñu rafetlu que ni ni Modou Lo def moom moo gën teel a wax ne dafa bële suñu arrêté komba bi moo gën mu demoon ba ci bés ba ñu daan ko mu génn naan daanuñu ko. xam nga blessé bëre doo tere am damm doo tere ñàkk ndam doo mën nga ci am it defet parce que xëy na mën nañoo yegg fii metti douleur bi tax nga doo mën li nga bëgg def nga mën koo def. mais tamit combat bi enjeu bu mu am ñu pare ko ay at ko ñu war a jàkkaarloo bëree Modou Lo am blessure bi nga xamante ne nit ñi nangu nañ ko tey jii bu ñëwoon ñu daan ko mun nañoo euh, sukkandiku ne dafa blessé moo tax ñu daan ko moo tax gars yi ne est-ce que nekkul tamit euh, nu mu def nii moom moo gën pour ñu moom mënoon a bàyyi ba ñu yegg ca làmb muy bëri. non blessure bi du ñëpp ko nangu. nee naa la bu doon cent personnes quatre-vingt-dix personnes yi ko. mais mais mais mais lu tax nanguñ ko parce que mbër muy entraîné moom mooy blessé tamit. waaw d' accord mais fin yi mu tax bi mu commencé la bu doon da def jaar yoon fa mu doon jaar mu fay jaar. Mhm. boo ko woowee signature mu ñëw signature. Mhm. yaa ngi muy dégg di déggante di def ay sorties gars yi di ko gis muy entraîné. avant tout ama nekk États-Unis eh, États-Unis jaar France ak yooyu. Mhm. di ñëw moom mu ngi woon fii di entraîné yi ci diin yi normal. di préparer moom nee na dem na ne ba na mbër mi bu ñu duggee ci benn néeg bu ma leen toogal fii nga toog fee kon préparer na pour bëree mais doo néeg ba 15 jours des ci 2 semaines. des ci combat nga yëkkati doo xam ne attanuloo ko. Ah, da nga jàpp dafa dafa yëkkati lu mu àtt wala lu mu teg yaramam. non xam nga bu ñëwee épaule mooy métti loxo moo liggéey daal liggéey ci loxoom. waaw dafa liggéey ci loxoom benn liggéey bi mu liggéey kon ci loxo bay la ko doon ci loxoom na ko doon def mhm. waaw kon bu fekkee ne parce que boo doon daw nii rek nit mbëkk la sa mbagg mën naa mën a bañ mbëkkante mhm. mën ngaa bañ a ci mbagg kenn mën ngaa mbëkk feneen fu dul ci mbagg mhm. su la bëggoon a dajee di mbëkk pour mbëkk la pour gaañ la du ma la ci mbagg ci bopp laa lay wala ci jë wala ci gémmiñ wala yooyu mais dama la mbëkk ci ay mbagg yooyu moom yëkkati na xëy na loo xam ne di attanu ko biskulee na parce que kon ni ku nekk am nga foo xam ne fii te dafa am positif ak négatif mhm. c'est côté droite mën naa am doole ab doole côté gauche côté gauche mën na ëpp doole côté droite bu fekke ne dañ laa jox sart boo xam ne bii dañ la koo jox muy sart boo xam ne bii dafa diis tolloo te benn côté bi négaat amul doole benn côté bi am doole bu bousculé ci benn côté bi nga xam ne amul doole mën na yegsi ci sa loolu mën naa arrivé ci loolu nag amut waaye daal li ñu gëm mooy bu fekkee ne am itam il a fauté porte warta noonu alors que euh, comme ni ko suñu père euh, waxee euh, duñ defee lu luñ dikkaat ci li nga xamante ni mooy jaaxal na nepp ñëpp bëggoon xam ni père bu Ama Baldé jegee ñu ne combat bi amatul moom nan la yëg moom ku gëm yàlla la bi mu amee it génn na wax ak mu war a waxal laaj leen kenn ku ne ci ñu wax mu dellu ko néegam bi wet sete itam préparé na ay combat mu ngi muy préparé comme ni mu doon préparé ay combat mu ngi a dem entraînement di dem di ànd ak ay xaritam du toog di jóg entraînement ba léegi nii mu ngi def entraînement normal comme quoi que le 13 mars lay kon ak lu mën a xew moom dana am ak du am ak ko yàq dara l'essentiel moom mi nga xam ne ki mooy mbër mi bëre ji euh, bu sañoon adversaire am dara du ko metti man mii bu fekkee ne yàlla dëgg la bëgg te ku dee ñu ber la ni ma yéenee ama daane ko noonu Modou Lo jël bu ma neex noonu laa leen yéene ñoom ñaar ñëpp ñu am wér ak tàll ak fekke ñëw ca ja parce que ba loolu bu amul ñoom ñaar duñ mën a ñëw ca làmb ji. comme ni ko suñu père waxee loolu bu amul ñoom ñaar duñ mën a ñëw ci làmb ji euh, mais tamit euh, père gis nañ ne buñ déggee say wax à chaque fois. yéen deen a jàpp ne Modou Lo moom moo euh, moom moo moom moo forcé li nga xamante ni moom moo ko dal waaw mais forcé ak ñàkk ko forcé mooy action la yoo xam ne yi promoteur bi génn ba wax fu muy fajoo ji ah dañ koy répété dina dem France ba États-Unis ñu opéré ji dafa am sog sogu sogu lan la. kon daal affaire bi dafa luus ci diggante li Nicolas ak moom. waaw mais loolu moom monde làmb d'accord ci ay nit ñi dañuy jóge ba Europe di la woo ay nit dañoo nekk fii ci dëkk bi di la woo est-ce que noonu la ñu war a doxalee est-ce que gaañu na est-ce bi mu gaañoo mën na ko tere bëre est-ce que. martab ba bi ñuy jox gaañu gaaj bi yegg na fa wala est-ce que ni ñu ko war a xoolee. promoteur bi nga xamante ne tamit père génn na def ay millions ci làmb ji euh, tëgg ko ay at moom est ay euh, moom it euh, dina togg benn moment mu bëgg a comme comme mbër mi dafa blessé xaam génne combat blessé pour arrêt pour yàq combat. en tout cas li ci mën a xew ya daal ax am na ci. 99 la combat bi taxaw nit nag kenn ku ne ci kilifa dañ la la sax kër. boo ko jënd na seet boo jënd wata na ko seet boo dugg ci soxna na ko seet ndax gaaf kenn xamul lu mu gaaf quatre-vingt-dix-neuf ba léegi lu la traversé nañu ñi bari dee nañu ndax Covid bi ñëw na rey ñu baree bari ni ñëpp da tiit ñi ak làmb amatut ñu dellusiwaat ñu yàlla dogal ñu ñu ñu féex ñu ubbiwaat ba fee ñu tëjaat làmb football ubbi làmb tëj. sonn nañ ba bëgg a dee. 2019 2020 2021 2022 ñu dugg muy 4 ans yoo xam ne làmb ji amut xale yi kenn ku ne ci yaa xëy na ñoom mu ku mel ni mu loo xëy na comme ni ko gars yi waxee am na waaye nag. <clears throat> bari na ci ñoo xam ne ñu mbër yoo xam ne yi dañoo bàyyi bëree dem ba fee ñu dellusiwaat ci làmb de ndax xaalisu làmb nag ni nga koy amee boo demee quelque temps toog te defoo ko man quelque defoo woon defaatoo beneen liggéey toogaat xaalisu làmb ni mu ñëwee rek noonu lay demee de. mais si ñu gis ne Ama Baldé depuis 2018 la gëj a bëree moog Papa Sow naa ni yàgg na mu mu topp ci komba bi nga xamante ni à chaque fois bu saa sa saa yu ñëwee combat bi yegsi na rek combat bi yàqu loolu tamit gëj a bëree boobu noonu du def dara ci mbër mi. non xam nga euh, moom avant combat boobu ñun bëggoon nañu ay yeneen i combat mhm. am na promoteur yoo xam ne ñu ngi doon dox ay combat mais adversaire yi mu waroon am ñoo ñëpp ku ci nangu tey bu subaa nga bañ ginnaaw suba nga nangu ginnaaw wax suba nga bañ. daw boobi daw daw façon daw yooyu. yaa ngi ñii ne ñoom daf ñoo sonal heure bu duggee suñu écrit daf ñoo daan sonal nañu mun ñoo nangoo jël moom daan na ba ci Papa Sow la mujj a daan nanga mag na façon yooyu yooyu lañ war a bàyyi. même kii nii Bombardier mi magam ji ne rahmatullahi ali di magam bi gaañu ba ñu doxee combat ba def ne moom du ñu bëri ak Ama delloo combat ba Bombardier ndax nag woon na waaye nag moom mooy doon lépp. nga jàpp ne mbëri dañoo ragal ah non xam nga ak combat yi jàll yëpp non parce que mbër moom kenn warta ragal morom ma waaye xëy na am na lu ñuy sóoraale ci yooyu bagage yooyu. ndax tey wax rek da lay ragal. non doo doo wax loolu parce que xam nga tax doo ko mën na wax mooy. Mm-hmm. Euh, am na boo yoo xam ne ñu ci suuf bëgg nañoo bëreeg moom. am boo yoo xam ne tey bëreem ñoom ma leen gënal ñu bëreeg am da leen neex. aussi tamit ñu gis ni combat boobu yàgg na euh, ay at ñuy daw pour bëre. Euh, Ama Baldé dem na fu nekk Modou Lô dem na fu nekk euh, li li nga xamante ne amoon nañ ko ci wàll ci wàllu xaalis mun naa ne deseetuñ dara ban impact lay def ci mbër mi nga xamante ni même pas deux semaines nga war a bëree ñu la sa combat bi amatul. non Modou Lô demul fen Modou Lô dem na fi. Modou Lô nag génn dem entraîné. fukki fan ak juróom la def. ñu woo ko mu dellu siwaat fii delluwaat ñi ba muy delluwaat li ñuy wax ne day delluwaat dellu gi muy delluwaat nañu mbagam lay faj yi. kon da jàpp ne Mor Lo moom entrain euh, entraîné demul fenn ñun ñoo def six mois ci àll bi. vidéo yaa ngi nii bu la neexee ñu war la ko six la def ci àll bi ràññee dugg ci got bi àll bu xonq coy di liggéey liggéey bu tar teg ko fi ñu ko war a teg loolu mooy liggéey mais toog fa mu neex la nga lekk say hamburger ñëw toog fii ñu ne déedéet. Modou Lo nag Modou jël adversaire bi mel ni Ama Baldé te du entraîné. combat royal looloo jaadu li mu doon entraîné fii di ma ñëw toog na continuer entraîné loolu waaye dem jël loo xam ne day yàq sa làmb pour lan yooyu baaxul yooyu def sa vague. alors mi ngi noonu mbokk internet internetu euh, dakarnet.com comme ni nga koy defee a chaque fois doon laaj euh, père Abdou Bakhoum mi nga xamante ni mooy ménagèru euh, Ama bale tey yaakaar naa ñëw nañ ba këram seet si ko waxtaan ak moom père duñ defee lu jox la nga tàggatoo ak mbokk internet yi di la xamante ni kontaan nañ vraiment ci recevoir du ñëw recevoir. waaw maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa làmb ak li ci biir nga xam ne benn groupe la bu ñu créé ñoom yaay jàmmeek Malal Ndiaye ñoom Mansour Diop ak Cech ñoom grand bour Palla ñoom ñoo ñëpp ñoom kanji pour ñu bare bari di am ñoo xam ne dañuy daje ci lamba ji waxtaan ñoom it chaque jour daal ñu ngi veillé ci làmb ci surtout lamba ji ñu ngi ciy veillé ak yeneen i combat parce que combat yii di ñëw ba ci combat le 27 bii di ñëw ni contre monsieur nag Bombardier ñoom ñu ngi ciy waxtaan kenn ku ne ci yaa ngi ciy toog di ci waxtaan nan lañ ci war a demee ak nan la war a demee niñ ciy taxawee kon maa ngi gërëm ñëpp di nuyu ñëpp di ñaan yàlla jàmm ci réew mi ci kàttanu yàlla ah combat bii ñuy wax ni itam nga xam ne ñii dañ naa dina am ak du am ki ñi nga xam ne ñii daal xëy na ñoo waa parcelles yi ñoom fu nekk loon na ñu ngi koy wax boo waxee ñu ne xaar leen nag teey leen nag dinañu bëreek yooyu ñu dellusiwaat te gëm yàlla xam ne ñaari xale lay war nañoo bëre deux ou trois ou quatre fois muy combat bu neex parce na fekk ay mbër yoo xam ne ñaari yoon la ñoom yooyu nag daa war ne ñooñu mu doon bëre ñoom ñii mu daan leen ci nii wala mu daan leen ci wala ñee daan ko ci ñaari yoon wala kii daan ko ci dootul bëreeg moom yooyu mu doon bëree ñoom nag xam ne xale yi dañuy ñëw ci moom ak nii xale yi mel ni ama war a bëri moom tey bu ñu bëree ama daan koy daba calculer war a xalaat ne am na yeneen i booy yoo xam ne dañoo bëri bëri ndax maa daan mënuloo ci sa carrière loolu dafa baax ci carrière